lii mu def tamit mooy li nga xam ne ne lu ñu soxal la dëgg sax damay wax ne ne lii demarewul tey ndax euh, lii nga xam ne ne moom moo nekk suñu diggante te liggéey bi nga xam ne ñu bokk ko te di ko def li mu gën a rafetee yàgg na ci suñu diggante ARTP ak CDP xanaa damay wax rekk tey ne dañu ko xaatim dañu ko teg si kayit euh, pour li nga xam man bés ma fi jógee wala moom bés bu fi jógee képp kuy ñëw rek di fi fekk mën a wéyal liggéey boobu loolu lañ def tey waaye dëgg-dëgg euh, ñi ngi bokk liggéey bi ay de at ñi ngi naka la suñu ay énergie la mission naka la ñuy lëkkalee suñu ay mission nga président la ñu

ñi ngi koy wéyal ndax nit ñi yëg nañu lu xew ndax nit ñi xam nañu seeni droit waaye ndax nit ñi tamit ñi ngi ñi ngi ñi ngi sësu si li nga xam ne moom la loi bi tëral kon loolu yëpp nag suñ ko gis suñ ko amee ñu dénk ñu euh, saytu boobu ñun dañuy war nag booloo nag booloo boole suñu ay ay expertise boole suñu ay service boole ak suñu ay xel Set nak lañ ko mëna doxale doxalee ba mu gëna rafété té yeen biñ ñu wara yeen dañ ko dañu wara a jappalé ko pour objectif yi nga xamné mom lañu assigné ñu mën ko atteindre lolu motax man dama leen di sante rek di leen gërëm monsieur le directeur général de la RTP ci sa taxaway bu rafet ak compréhension bi nga xamné mom nga comprendre mission Nous avons le lëkkaloo pour atteindre la satisfaction mais également nous avons un cyberespace de confiance mais également résilient